Edisyon 2019, Vougamou Boulambaye, Elaj Abdoulay Dja, nek parè. Mou yon mou fè delega Choubou Amsolo, wè beklol ti. Tèrtou bi yon khamne wè Lambaye, tèrtou nanou kofa. Tèy dèmè nye ou avèk yon nou, tèy fòt mobilizasyon, djouge Bambaye, an lèk departman vi, mou tout dèmè djange yon. Mè amsim bekte. Ndak tèy, bi mè nye wè gis nan ni mè wè Lambaye Tèyro, bi mè nye wè gis nan fòt mobilizasyon Lambaye, bima ñëwé ñëwee gis naa kilifa diine yi kilifa aada yi ni ñi ñaanalé Macky Sall ndax wax dëgg ci Yalla le président Macky Sall illaa Touba gi mu def ak assainissement bi mu nekk di ko régler ak ni mu dimbalé baykat yi ak ni mu dimbalé étudiants yi ak ni mu nekkee ci l'emploi des jeunes et la formation des jeunes wax dëgg ci Yalla ku jëla jappalé la mo taxone ñu profité si pour santat sëñ bi bu baaxa baax santaat aussi waa arrondissement bi teyit di leen wax nuyoo excellence Arouna Dia excellence na Dia di nit ku baax na Dia di nit ku yiw yiiw na Dia di nit ka nga xam ne ku bëgg la président de la république Macky Sall laaj ñeel jafe-jafe làmbaay moom elage Jadi wax ne moom daal fekku fi ay jàmbat ay sant ngërëm la fekk askanu làmbaay di ko def jëmale ci président de la république Macky Sall waaye moom it muy jaajëfal Harouna Dia mi nga xam ne su ne mi ngi dugal loxom ci liggéeyu président de la république. wax dëgg ci yàlla bi ma ñëwee làmbaay waa làmbaay nee nañ ma dañoo kontaan waa làmbaay nee nañ ma seen xol dafa sedd ndax président taxaw na leen Harouna Dia mi ngi dimbale les étudiants ci turu président Macky Sall. Aruna Dia mi ngi dimbale béykat yi ci turu président Macky Sall Aruna Dia mi ngi dimbalé new du doole yi ci turu président Macky Sall Aruna Dia mi ngi def des actions sociales ci turu Macky Sall kon nit bu mel noonu goudi ak beuk di def ay effort ci département bi ci Sénégal ci diaspora ci turu Macky Sall lolou dafa am solo ñun wa Bambey aussi ñu sant bu baax Aruna Dia diko xamal ni wax

tay wax deug ci yalla président mi ngi gol góorgóorlu bu baax a ba gis nga électrification royal bi ci si président def gis nga aussi l'addition de de d'eau li si président def gis nga aussi aussi semence li si président def béykat yi meruñu tali bi nek inshallah allah président mi ngi si finaliser nañ lepp euh, lancé nañ marché bi ka xam naa fan ñu néew diir gu néew euh, sobe yalla ak yonti bo fi ja sa xol dina sedd waye boo leen gisee délégation gi ma andal ñen xamné des identités remarquables ndax bo xolé Emine Ndiaye xol Ndiaw kan xol dam Ngom xol les Amazones les Fatimata, les Dieng xol xool ña euh, Mata xool ñam Njaw Kan xol ñi fi nek ñep identité remarquable Cinco boo la laxat lay soo xoolee saas yi xool waa Bambey ñu ak man nga vraiment vraiment vraiment bambe lek bokku nañ nday bokku bay uniquement pour lier le président. waye encore une fois résolution bi moy au niveau de bambe au niveau du Sénégal au niveau de la diaspora

ci dig digal bi